voilà situation bi ñuy dund fi nek na ay situation yu tar parce que boy xol ñun buñ féké dañuy def tout historique bi ñun ñu fi dëkk depuis vers les depuis les années 99 bok ci lotissement bi nga xam ne Mbaye Jacques Diop moko fi defoon mais véritablement euh, ñun fi sante yalla ñu ngi vivre ay moments yu difficile difficile difficile ay moments yu impossible sax lay wax parce que bu nawété bu tawé très sincèrement je waxuma ça pas fait, mais la nuit là nelaw parce que les eaux usées mu ngi déver ci ci mbedd mi ak xeet gens yu ne xamul nit munu fi jaar vous avez quartier bi niñ ko wanee ni ci ci ci film bi di nga gis vraiment nek na quartier bo xamné ne dëkk fi sax c'est pratiquement impossible assainissement zéro ben assainissement amu fi d'ailleurs amna luñu lu ñu prévoir woon fii au niveau de Rufisque moy un budget de 110 milliards pour l'assainissement de la ville de Rufisque mais boobu ba léegi sant yàlla gisuñu ci bop Promo ville bi ñëw na prévoir fi ben tali tali deux voies mais boobu ba léegi voie lañ fi gis ta tali deux voies bobu ñu fi prévoir sax da fi créer ay problème parce que boy féké da ngay def am un projet de construction de route dafa dafa dafa assainissement bi dafa dafa dafa wara and ak mom pour au moins mën évacuer les eaux mais boobu les travaux restent inachevés manam travaux yi pas ñak Les travaux yoy nak mo ñu indil problème yoy fi mu nek au niveau de Santé, yalla la nappe n'est pas profonde yi vidé bo auto vidange mu vidé bala muy euh, retourner même pas cinq minutes da nga gis fosse bi est-ce que vous voyez. Ce qui veut dire que non, les populations sont obligées de déverser, parce que faute de moyens, nous obligés de déverser ces eaux pluvi euh, eau usée yi mu dem ci bi pluviale C'est le problème L'électorat a une importance parce que boy bureau de vote yi zone bi les gens votent massivement surtout l'élection est passée. et je ne le dis pas pour pour pour pour pour opportunisme wala yu nous. mais ils ont voté massivement pour le président de la république bi Makissal. tout en euh, disant yaakaar au moins dina alléger nos souffrances mais véritablement souffrance yi dafa gën a C'est Mon dernier cadre Je mooy lancer un appel au chef de l'État euh, pour que vraiment mu ses services pour l'étude de faisabilité

yi nga xamante ni depuis colon ba tey ñi ngi fi mais tey foo dem tey Tëngéej moo si gën a arriéré waxuma sax fii ñu nekk ni sant yàlla mais boo demee Tëngéej ville tey comme ni ma ko waxee léegi suñu collaborateur bi euh, gabaar bi nga xamante ni moo nekkoon un gouverneur ici un gouverneur français tey boo ko yeewoon tey si bàmmeelam tey nga yóbbu ko Tëngéej ville mu fëggatu nela la fii mooy fii fii mooy fii fii mooy fii fii fii rien n'a changé à Rufisque dara changé wu fi

Guédiawaye Promoville tali yi nga dem parcelle nga partout dans le Sénégal le pare na dem naa ba Ndioum Ndioum ma fa demal sa mbop, koñ bo dugg amna tali mais Tëngéej la gis dëkk bo xamné tali amu fi on a un problème d'autorité panne d'autorité mom nan am ci dëkk bi ñun nak xaratun maire xaratun ken, motax ñu génnal suñu bopp mobiliser suñu bopp pour suñu problème ñu ci état président Macky Sall ñong koy lancer un un appel solennel pour mu ñëw ñun Rufisquois yi bu fekkee ne autorités yi mu fi teg xool nu dugg nu biir Tëngéej xool li fi am ñu mën ko régler moom mu envoyé ay nit ñu xool li xew tëngëj parce que ñun sonn nañ